police spéciale bu Touba ci liggéey bu am solo bu ñuy def ngir faagaagal ñépp ñuy def ay ñaawteef ci dëkk bu sell bile tax na nag ñu teg loxo ay doomu aadama yu ànd doon yëngu ci wàllum faux maanaam ab xaalis bu baaxut ci marché Ocass buñ sukkandikoo ci source a mi joxe xibaar bi ginnaaw bi police yëgee ne am na ay doomu aadama yu yëngu ci wàllu woowile ci la ñu tàmbalee def seeni investigation maanaam seeni luññutu ak seeni lëñbët ba identifier ñenn ci ñooñu gannaaw loolu nag ci lañu daal di jokkoo ku tudd Akane bokk ci mbir mi ci la police daal di defa commande lu toll ci juróomi million waaye nag ki nga xam ne ni moom lañ jot mu bokk ci réseau bi di Akane dafa xamal waa police ne leen million quatre cent quinze mille francs rek moo fi nekk te loolu ñu ngi ko jaayee cinq cent mille francs CFA yu baax bi muy jokkook ñoom nag xamuloon ne sax ñii kat ay policier lan ginnaaw bi ñu waxtaanee ba juboo ba joxante rendez-vous dox daje ci benn bërëb ci la nag daal di akan daal di yónni ku ñuy wax Eftiune nekk ab commerçant ci marché Ocass bu Touba ginnaaw bi mu dajee gaa yi bay waxtaan ak ñoom ci la door a xam ne kët ñii ay takk der lañ ci la daal di bëgg a daw ñu daal di koy teg loxo yóbbu ko ca commissariat ngir enquête ko ba mu àggee foofu kët dafa xamal gaa yi ne leen man kët laalewu ci mbir mi dan maa yónni kese waaye loolu génnew ko ci bi takk der yi wéyale seen enquête ñeel ki nga xam ne ni jëkk nañ ko teg loxo ci mbirum faux billet mi ñuy tudd ci marché ocas ci la daal di woo ki joxalan rendez-vous ginnaaw bi mu ko woowee nag ci la daal di wuy téléphone bi xamal ko ne ko dil bi toj na ci jamono yooyu nag ca la fayab téléphone am rocci ay piisam ne mes na menteñ ba tey ji kenn gisagu ko ci la takk der yi daal di wéyal seen enquête ngir xam nag kan ak kan moo laale ci mbirum trafic faux billets mi fii ci marché Ocass ci la F mi nga xam ne nii nag jamono yi tege ni nañ ko loxo joxe turu ku ñuy wax Idieng alias général moom nag moom la ñu wax ne moom moo nekk ci bopp réseau bi maanaam mooy chef de gang bi ginnaaw bi ko police tegee loxo di ko enquête moom kat dafa weddi ne laalewut ci mbir yi benn yoon waaye nag lii di téléphone F mi mu doon jokkool moo ko trahir bu ñu sukkandikoo ba tey ci su A mi nga xam ne moo joxe xibaar bi ginnaaw bi takk der yi xoolee conversation maanaam waxtaan yi nga xam ne ñoom ñaar seq nañ ko ci WhatsApp ci la ñu gisee ci téléphone FT ay photo phobie ak ay waxtaan yoo xam ne nii day firndeel ne moom mii di général kat laale na ci mbir mi lee lu jiitu loolu sax moom ab téléphone am ginnaaw bi mu yëgee ne kat mbir mi toj na ci la daal di supprimer mbooleem waxtaan yi nga xam ne nii. ñoom lañ seqan waaye waxtaan yooyu dafa desandi woon ci téléphone ki nga xam ne nii moom lañ jëkk a jàpp moom moom mu nga xam ne nii moo di Idien di général ñu jàpp ne moom moo jiite gang bi nungu na ne bokk na ci mbooloo mi nga xam ne nii dañ leen a teg loxo ñuy yëngu ci wàllum faux billets te nekk marché ocas ci la leen wax nag ne commande yi ñu ngi koy jëlee dakaar ñoom policiers yi nag ñu ngi wéyal di def seen i enquête ginnaaw bi ñu leen dégloo nag ci la ñu leen daal di defeere ci àjjuma ji ci tribunal grande instance bu njaareem gannaaw bi ñu leen dégloo sax buñ sukkandikoo ci source a jot nañoo am li nga xam ne moo di retour de parquet waaye dossier bi jamono yi ñuy wax ak dugal nañ ko instruction juge première cabinet moo koy saytu ñoom ñaar ñi nga xam ne nekk muy F Thioune ak Idien ñin jàpp ci wàllum faux billets ci marché Ocass bu Touba jamono yi yóbbu nañ leen mandat dépôt ca kasoom njaareem ngir xaar nag seen ab àtte muy lekk liggéey bu am solo boo xam ne ne duñ ne guléet polis mu ngi koy amal diggante Mbàkke ak Touba ngir teg loxo nag képp koo xam ne yaa ngi def ay ñaawteef wala lu jubut wala boog ngay indi ay fitna jëmale ko ci askan wi